la jeunesse aujourd'hui marginalisée, la jeunesse qui, nos autorités n'ont pas confiance euh, en elle. On n'a jamais vu un gouvernement avec des ministres jeunes. On n'a jamais vu des assemblées nationales dans ces pays-là avec des députés jeunes. On n'a jamais vu des postes de direction générale confiés à la jeunesse. Voilà, c'est pourquoi la jeunesse perd de l'espoir. Ces jeunesses-là qui empruntent ces pirogues-là et qui, qui meurent en, en, en haute mer, à la, à la, à la quête d'un lendemain meilleur. Donc, ils mettent leur vie en danger. Donc, ce qui veut dire que la jeunesse n'a plus peur de la mort. Ce qui veut dire quoi Ça veut que tous les gouvernements de l'Afrique, les décidents, doivent toujours développer une politique d'emploi de jeunesse ou une politique d'employabilité de jeunesse. Développer, avoir donné encore entière confiance à la jeunesse, donner la confiance aux jeunes, les confier des postes de responsabilité qui puissent leur permettre de vivre de leur expérience, gagner leur vie dans leur pays natal, au lieu de, de chercher l'ol de la roue, qui n'est pas du tout approprié à nos, à nos valeurs. Donc voilà pourquoi l'Association pour l'intégration africaine œuvre pour cette intégration, œuvre maintenant pour solliciter et encourager également nos décideurs à donner plus de confiance à la jeunesse. Parce que nous avons te dara warul ko lu dul euh, ñu ci bëri ci suñu gouvernement yi amuñu confiance seen jeunesse da ngay gis gouvernement boo dem bu ñu la waxee vingt cinq ministres la bu ñu la waxee trente ministres la doo gis un ministre jeune bu ñu la bu ñu demee ba ci kaw nga xool ci assemblée nationale yi ñu ne la cent quarante députés la par exemple l'exemple du Sénégal doo ci gis un député jeune ñu xoolee maire maires des communes doo ci gis un maire jeunes ñu xool poste de direction générale yi ñuy confier doo ci gis un directeur général jeune moo tax jeunesse yi manque ñàkk espoir jàpp ni dem wuti ko bitim réew mu jaral leen seen bakkan moo tax ñuy dem leen